ay lënt dafay fëkkaate biddaa bu njëkk feeñ ci xeet bi mooy ña di ndogal topp ñi nga xamante ne ñoom dañuy génn topp ci nguur yi di leen yéeféerloo loolu mooy biddaa bu njëkk feeñ ci xeet bi lan moo tax ngir déglu ay lënt looloo tax ñenn ci nit ñi ci jamono yi dañuy gis ñu di yónnee ay message yi nga xamante ne ci whatsapp dafay am ay lënt ay am ay wax yu doy war lool ñu leneen xoolal waa ji nen bi muy wax déedéet loolu daganul xool yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni mu ne boo gisee ñi nga xamante ne ñoom di ñuy topp laaya yi nga xamante ne yeneen aaya mooy ñëw di ko leeral di bàyyi aaya yi nga xamante ne moo yëleer ñooñu yàlla seede ñoom seen xol yi dafa jeng na nga leen moytu